li ma gëm mooy liggéey moo mun a defar Sénégal li ma gëm mooy du politique mooy defar Sénégal li ma gëm mooy du politique politicienne mooy defar Sénégal li ma gëm mooy liggéey mooy defar Sénégal mais liggéey boobu ndaw ñi il faut ñu teg leen ci yoon tey fii ñu taxaw ci bâche bi boo laajte woon ana ñaata nit ñoo ci fayu weer ñi bari ñi yëkkati seen loxo du bari te pourtant ci loolu la ñuy natte réew pour xam ndax réew mu ngi dox wala doxul kon li ma gëm mooy nit ñi dañ leen war a encadrer man gëw ma ndimbal dañu war a dimbali nit ñi déedéet parce que lañu lay dimbalee sa alal la boo jógul dem ci boutique bi jënd fayuloo taxe fayuloo impôt ka nga jàpp ne da lay dimbali amul lu mu la dimbalee parce que la mu lay dimbalee ci suñu kees la ñun ñëpp ñoo ko moom la preuve da ngay dégg ñu naan la diw dafa baax. diw baax na Ablaye Wade baax na doon nga ko dénk 2012 nga ko gëj a dénk parce que la ma doon joxe suñu alal la léegi ngay dégg ñu naan la Marème fay baax na kañ la baax li ñuy joxe suñu alal la malheureusement li ñu ñuy jox wala li ñuy naxe il faut ñun ñu fexe ba loolu ñu ñuy naxe mu mën a dakk parce que kenn ku nekk ci yéen ci jotaay bi waajur bu ci nekk bu doon sa sago sa doom moo lay gën mais sa doom pour mu gën na faaw nga waajal ko te ni nga koy waajalee mooy tànnal ko njiit lu baax lu yitte woo ëllëg tànnal ko njiit loo xam ne mën na koo teg ci yoon ba mu am njàng mu baax am paju mu baax am encadrement bu baax bu ko defee bu ëllëgee yéen way jur yi seen rangooñ bu rotee moom mu mën koo feral loolu mooy li ma gëm loolu moo tax ma nekk di wër Sénégal di waxtaan ak nit pour qu'il y une relecture des perspectives pour que nit ñi comprendre ne Sénégal bu waree soppi yéen ñii yéen a koy soppi du ne chauffeur la karang du ne transporteur la karang wala damay dawal Jakarta karang que waruma bokk ci ñuy defar Sénégal président carte d'identité benn fois la am yow mii di jaay ndékki ci karang sa carte d'identité benn fois donc yaa président yéen a tolloo ci réew dafa jug sasu ne moom daf la bëgg jariñ yow mais pas moom mu jariñ dafa bëgg jariñ la yow ngir ëllëg say doom mën a tekki ngir la ñuy yóotu nga mën cee jot mais malheureusement on s'est rendu compte que ñi ñu jiite seen bopp rek moo leen intéressé ñi ñu jiite seen i njaboot moo leen intéressé Sénégal rek ngay gis nit naan la kaay li ñu bokk ma dimbale la ci li ñu bokk war naa cee mën a jot dugal dépense ci kër gu nekk kenn mënu ko waaye mën nañoo fexe ba kër gu nekk nit kuy yóotu dépense mën caa jot bu àndeek fulla ak fayda ça veut dire quoi teg ko ci yoon sa veut dire quoi doo ñëw di wax jigéenu karang danaa leen jàppale boo jàppalee jigéenu karang fàtte jigéenu Sokone boo jàpp jàppalee jigéenu euh, Nioro fàtte jigéenu jigéenu tuubaatul donc du li ma gëm man mooy fexe ba kenn ku nekk la nga yóotu nga mun caa jot élage mi yéene bi mu am mooy mun a teral waajuram liggéey ñàkk jariñoo mais la muy liggéey mu mën koo jariñ e loolu ñi nekk ci suñu kaw ñoom ñoo ko mën a def mais malheureusement on s'est rendu compte que dégg nga li ñu lay wax naan la ci sept yi liggéey nañu ko ci ana lu ci seen njëriñ yéen ab autoroute Ila Touba lu mu leen jëriñ te waa Touba bu tawee ñu taa nga defal leen autoroute lu mu leen jëriñ nga jël ab TER train def ci huit cent milliards alors que karang gi yéen a ngi am problème mu wér-gu-yaram ana lu mu leen jëriñ. ndox ndox ndax waa Ndakaaru sax naa nañu su may wax ak yow de. waa Ndakaaru sax naa nañu su may wax ak yow nii démb ak léegi ku nekk yaa ngi yor say bidon di wër ci mbedd yi. alors kon bu fekkee ni nit ñi sombi gi ñu war a naan sombi gi saful suukar. <laughs> nga jël suukar si di ko sotti ci lem gi ñaar moomu naa wa ilaa da ngaa waane wa ilaa yéene wóole kon nag mbéjum kanam borom a koy fajal boppam.